nga xam ne rek moom la ñu fay déposé yéenekaay bi di Vox Populi nag ma ngay xam ne ne tey jii nag bu zéro heure jotee ca la waa conseil constitutionnel fas yéene ndar képp seeni buntu yemook nag bés bi mujj bi nga xam ne ci lañ àppal nag ñii di candidat yi ngir lu soxol dépôt yi nga xam ne rek moo jëm ci élection présidentielle yu atum 2024 ci ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay candidat ñeent fukk ya képp ñoo déposé gum seeni dossier ca conseil constitutionnel bi ne tey kay bés bu nar a gudd lay doon ci di mandataires yi nañ ko nemmeeku nga xam ne rek moo di ca conseil constitutionnel le quotidien yëglekaay na jamono jii kay yegg si nañu ci cëppaandaw gi ndax démb na fanweer ci ay dossier yoo xam ne nag jot nañu ko enregistré ca conseil constitutionnel waa ñoom ña ngay xam ne nag ne génn nañu kon ci boobee kursu ña ngay ñaawlu itam nag doxalin gi ñu taxawal ci wàllu parrainage yi ci Walf Quotidien moom Abdoul Mbaye di candidat à la présidentielle nag ma ngay xamle doxalin gi mu am ci doon sénégalais dëgg-dëgg bi ñu yaakaar ak soxla ko nag ngir mu doxal ab réewam nag yéenekaay bi di bés bi la jour Ndour xëy na Ousmane Sonko moom déposé na ab candidature am nag te amul parrainage amul attestation caution loolee nag bés bi le jour dippee ko ab scénario ci jamono joojee la solo yëglekaay xëyee foto waa jàngu bi nag yéenekaay bi dellu siwaat nag ci feetu Noël bi nga xam ne màggal nañu ko niki démb jàmm ak justice nag bokk na ci li nga xam ne moom la monseigneur Benjamin Ndiaye di digle nag ngir ñu daal di koy doxal fii ci réew Sénégal Sud Quotidien ne jamono jii kay jàngu bi li ñu bëgg rek mooy justice bu leer ànd ak jàmm amal élection présidentielle yu libre nag te ànd ak leeraange bañ cee bedd kenn Noël yooyee nag démb la ñu ko doon màggal fii ci réew Sénégal wax ci leneen les éco nag dikk tey ci taxe yi nga xam ne moom la ñuy dugal ci économie locale jëm ci valeur ajoutée yi nag yéenekaay bi nag dellu siwaat ci njuuj njaaj yi nga xam ne rek am na ci séddale gi waa Rufisque waa Touba ak waa Dakar Plateau ñoom nag jot nañu seen wàll ci nar gi waaye Ndakaaru nag ak Géejawaay Pikine ak Thiès dañ leen a bedd ci yëf yi ñu wax ci l'observateur mi dellu siwaat ca la xewoon nag ne nag juróom benn tuut tànk ñoo ca daal di faatu ba ñu suul leen nag ci anam yu doy waar yéenekaay bi nag di xamle ni Ndella joor Diouf moom da doon signé ay acte de dese jarale ko ci structure am bii di SOS santé animateur ba nekkoon ca rajo Safir FM daan suul bébé yi nag jamono ji nag teg nañu ko loxo libération dikk ci enquête bi nga xam ne rek moo ci tukkee jëm ci coowal pépinière bu kër yërmande yéenekaay bi ne Ndella joor Diouf ak assistant bi nga xam ne rek moo doon gérer lu jëm ci wàllu accouchement yi nag ak juróom-ñetti yi bokkoon ci pépinière defee ne tey jii ci talaata ji tàggat yaram la ñuy àddu jëmale ak réew mi sport nag rëg-rëg nag ma ngay xam le ne ni mu bëree ak bombardier ba daan ko amul kenn ku ko mës a réussir suñu làmb di ko feelu nag moom ma ngay nettaliwaat nag komba bekk na mu demee niki dimanche ji ñu weesu ca arène nationale ci diggante rëg-rëg ak B52 lu jëm nag ci ëllëgu bombardier moom nag ma ngay xam le ni daal dina ci waxtaan ak staffam ngir xool naka naka la ñuy doxalee record yëglekaay def ab taxaw seetlu tey nag ci blessure yi nga xam